ñu ñëwaat ci xibaar yi nga xam ni moo soxal wàllub làmb gannaaw génnub àdduna duubalees papay kii di Balla Gaye numéro 2 di ko jaal ba noppi yàlla yërëm ko xare ko aljanaam kii di Mouhamed Ali nekk le grand champion bu écurie Waalo nekk tamit formateur di jàppale ay xale ya fa nekk waxoon nañ leen ci jamono yi ñu weesu dafa tawat lool sonn lool ba amee woon opération ci biir bi ñaari yoon jamono ji dox sax mënu ko ngir mu déplacé wu dem ci beneen néeg dañ koy wommat waaye Mouhamed Ali moomu yëkkati na ay kàddu ci génnub àdduna dubalees ne metti na ko loolu te it mu ngi koy naqarlu waaye moom tamit wax na ci wàllu wér-gu-yaramam jamono ji ñuy àddu ak yéen nee na sonn na lool pour mu dox sax dañ koy wommat te tànk yi dafa néewi loolu am ay góom jamono ji lenn rek moo ko të muy deux cent quinze mille francs mbokk yi déglu leen deux cent quinze mille francs dong rek ngir mu def ay rajo ak analyse ci xol bi waaye fi mu nekk nii koppar googu amu ko te bëggul yoreel hôpital ay bor nee na moom daal fi mu nekk nii dafay toog di xaar yàlla lu ñëw rek mu jàpp ne loolu noonu la mën a demee waaye tamit Mohamed Ali ba ñu ko laajee ni ndaxte euh, ba xam gis na ay kilifa ci nguur gi nee na gisul kenn. kenn woowu ko déggul kenn lu dul meeru géejawaay bii di allune Sall nee na Alioune Sall moomu jokkoon na ak moom mu sàkk ko ngir mu dimbali ko gannaaw loolu dafa jël numéro am ne ko yor naa sa numéro dinaa la woo waaye bi mu fekk fi mu nekk nii meeru géejawaay Alioune Sall furaas daal di xëddéem woowu ko déggu ko gisu ko jotul benn dërëmam nee na it si gouvernement bi amul kenn koo xamante nii taxaw na ngir jàppale ko moom mi Mohamed Ali jàppale ne deux cent quinze mille francs rek la daal di soxla ndaxam li ni mel koppar yooyu war na ko të ngir mu dem faju ji war a def ñetteelu opération ndaxte fi mu toll nii ceinture lay takk ci biir bi bu tëddee mu am ay jafe-jafe loolu di yëkk ay coono yu métte métti waaye mi ngi dëkk ak moom bés bu yàlla sàkk di muñ di xaar yàlla waaye fi mu nekk nii bu ñu gisee ku génn àdduna kilifa yi ministre yeeg ku ne dem di jaxal di jaale di wax lu rafet waaye bu jotee pour ñu daal lay taxawu du ñu gis kenn di xaar rek nit ki dee ngir ñu koy tuddee lu ni mel te bu ñu waxee ñu naan nañ tuddee diw nangam nañ tuddee diw nangam di def délégation di dem di jaale kon Mohamed Ali deux cent quinze mille francs rek war ko të fii ci réew mi.